sawarutuma ci xam man la laa sawar élection yi laa sawar nañ ñëwaat ci aji saar aji rabi saar Hélène wax ñu li ñu wax léegi sànq nga ne Françoise nee na dafa am problème mu estomac fan nga jëlee information boobu Hélène sagam Hélène mu ngi fi wala bu dee keneen xam na ko kon li ma wax dëgg la aji saar mii ku ko xool xam ne kanam gi dafa jeex te en général bu sa kanam jeexee da ngay souffrir moo tax mu ma dafa am problème mu estomac waaw kii nee euh, na ak a nekk euh, cinquante mille nga may ko sa sa yaay comprendre en tout cas Hélène bind na ne aji Sarr dafa am problème estomac xaw ma ban problème la am de waaye waaye feebar moom def na ko ndax amul benn nit xale jigéen vingt et un ans bu ñuy tëj un an te doo feebar un an génération TikTok 21 ans mënoto def TikTok mënoto dem marché mënoto dem Youssou Ndour nga gis ay ñom Duba ki rangu ñu leen di yóbbu Dubaay yow ñu digon la ay million fay ñu la gat nga dem ba kenn xamul loy ndurol ñu def la mbindaan mom ci bopam mo wo Françoise Hélène gay mu wax ko son lolu loolu Babacar Touré moo wax nit ñi naan day fen day fen day fen Maître la Diouf dafa demone ba xalé bi échapper ko mom wax na xale bi fanaanul sama kër wa aji sar fanaanul sa kër kon kay mënoko contrôler xamuloo lo limuy def ak lu mu def dégg nga aji sar mo wo Françoise mu ko tata dama son je suis très fatigué wañ ba néeg ba wañ ba néeg yow mais aji sar warul toggu aji Sarr waru togg aji Sarr dafa wara nek ci li wax witness protection program progress program de protection d'un témoin xam nga programme de protection d'un témoin comme Macky Sall dañu mom mom nenañ dañuy cette affaire là elle sera traitée aji Sarr ke dañ ko wara japp nab nabba nabbal ko duggal ko ci appartement bu baax 200 <clears throat> millions lañ ko dik xawma luñ ko dik ñu jox ko mais dañ ka abandonner diko liggey lo def ko mindat néeg ba waañ ba xam naa dafa fàtte sax wax bale ak fobeere néeg ba waañ ba mënul sax dem marché mënul sax dem marché loolu kan moo ko mën kan moo ko mën supporter mais ñun ñi moodu moodu sax toog bi ñuy toog suñu apartement di xaar suñu liggéey daf ñuy sonnal waxtuma la xale bu jigéen te ñun heure bu ñeex génn gis nga man damay génn dem fu ma neex mais aj Sarr mënul génn <coughs> léegi léegi ba kañ lii ba kañ moom mi ngi subir conséquence am na ñoo ñu ne léegi mu génn nag léegi mu génn nag daal di nag jëfur nag Adji Sarr ñun dañ lay baal xale nga victime nga boo génnee nga baalu senegal kenn du la dóor kenn du la saaga senegal jigéen nga jigéen Sénégal duñ dóor jigéen Adji Sarr président Sonko baal na la yàgg na nee na la baal na la parce que xale nga dañ laa utiliser sa yaay dafa gaañu girim jirim nga sa papa yaru la sa tante dalaa dàq ci kër gi ah mais Adji Sarr xale la suñu doom la léegi nag bu bëggee ñu baal ko moom moo war a jëngu li ñu wax ne moom la bëgg def na ko def na daw bu dawee mu woo journaliste yi loolu Babacar ture moo ko ko wax ñu ne day fen saane Sané journaliste Walfadjri génn na mu wax ñun nag ñoo war a def campagne bi Adji Sarr suñu doom nga Adji saar dañ la utiliser aji sar gennal bo genné jorul sax ngay wax ñi la ñi la ñi la dugal ci complot wu sax ngay joxe ay mais gennal rek nga né man dal dafa am ay nit yu ma digone xaalis bu bari pour ma yaq deru Ousmane Sonko Sénégal ma ngi len di balu ak ma ngi len di balu ak xam nga man bu yebo sax ma dem kaso bu yebo ma torox waaye lii moom mënatul continuer Ousmane Sonko musuma def dara baal leen ma bu ko defee dañ koy baal kenn du ko dóor dañ koy baal parce que bu boobaa dina sauver Sénégal bu boobaa dinañ xam ne Macky Sall du président waaye bu ko deful mën nañ ko sax rey bu ko deful mën nañ ko rey am na ñu ne dañ ko bëgg empoisonné après jiiñ ko ñun ñu jiiñ ñu ko ñun ñemewuñ ko rey moom waaye de feebar na de nduru na ku feebar de dañ koy baal non Cheikh Ndaw dañ koy baal mais xale la yow tam Cheikh Ndaw ba mu koy def elle avait vingt ans <coughs> mais yow quand tu fais quelque chose la contrainte Cheikh Ndaw buñ la jàppee prisonnière ne la lii boo ko deful dañ lay rey nooy def bu doon yow nooy def sa papa mënul ci yow dara sa yaay mënul ci yow dara sa tànt mënul ci yow dara ah léegi dama bëgg xam nan la nar def est-ce que dafa nar toog nii ba deux mille vingt-quatre parce que ñoom duñ ko duñ ko utal visa de duñ ko utal visa parce que buñ ko utalee visa mu ñëw Amérique bu toogee Amérique nam mu Sénégal day xëy benn jur rek jël WhatsApp bi commencé wax barki Rasool laay duñ ko utal visa duñ ko bàyyi mu mu mu nekk Françoise parce que Françoise dafa doy waar parce que Françoise youtubeuse la te Françoise ay vues la bëgg waaw Françoise moom boo ko joxee Adji Sarr day commencé génne ay vidéo te non seulement day génne vidéo moom live lay def Françoise moom live te live moo gën a bon ndax live lu xas a génn xas na génn noo ko dagg xam nga Adji Sarr ba ba muy ba ko euh, euh, maître yóbboo këram ba mu commencé wax biiram bi Khalifa Diakhaté ne ko yow yaa ne dañ laa jox kafe ak coca pour nga yàq biir kon est ce que da ngaa biir nest pas foofu dafa xool Maître Diouf commencé wax di wax ne wey ba ma defee sama test dama woo Khady Ndiaye sama patron bëgg commencé expliquer ci biir bi de ci test rek Maître El Hadji dagg film foofu moom dañ kaa dagg partie boobu dañ kaa dagg loolu tax direct wóoru <clears throat> waaye ba muy def ak direct ak ak euh, euh, euh, Françoise dafa foofu la juume mu ne Babacar Touré wax na dëgg loolu Adji Sarr waru ko wax Babacar Touré wax na dëgg damaa tuxu après mu ne damaa sonn waañ ba néeg waañ ba dégg ça veut dire que la jaam lañ la def est-ce que yéen a may dégg loolu tax nag Adji Sarr elle n'aura jamais sa liberté jamais sa liberté moo mu ne tata je suis je suis euh, mu ne elle était fatiguée elle voulait un xamul sax mënu sax procès projet la wax <coughs> je m'excuse gars yi mu ne tata dama sonn projet rek laa bëgg projet procès la bëggoon wax instant yi nee na procès la bëgg parce que dafa sonn elle liberté am dafa elle est traumatisée elle est traumatisée ne est Babacar Touré sax daf ka est Babacar Touré daf traumatisée. sauver Babacar Touré dafa est traumatisée. Elle sar ba mu Babacar Touré dafa traumatisée. Elle deux mois Elle wax ndax Babacar Touré wax <clears throat> Françoise def vidéo bi

dañoo bëgg mu jeex mais xamuñu fan la ñuy jaar nee na leen nag nee na leen nag yéen a xam yéen a xam de waaye noo leen mën a def ba suul kaa bi di ngeen ko def <laughs> man waxoon naa leen ko adduna du neex ba ñu woowaat Sonko tribunal adduna du neex ba ñu woowaat Sonko xaw ma Touba xaw ma lan gis nga Touba temps yi problème yi ñu am sëñ Bass Abdou Khadre